Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Tawfekh Production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. julli lambara julli barasi julli kabinda julli kabira julli indiru julli banana julli banajiri julli matadi julli fuluba julli lambara julli barasi julli kabinda julli gadong julli mayomba ginni Madouli ginni Galba ginni Wirwir ginni Sarsara ginni Kongo Belsi ginni Matadi ginni Foloba ginni Buyama ginni Brazzaville ginni Kabila ginni Cameroon ginni Idibourougi ginni Banana ginni Conakry ginni Girigiri ginni Wirwir ginni Sarsara ginni Idibourougi ginni Daouli ginni Bafali ginni Wirwir ginni Kablabissa ginni Conakry ginni Matadi Faloba junni Lomé junni Assamé junni Kountuno junni Cameroun junni Nabarana junni Grand Massa junni Brazzaville junni Port Santé junni Yeewal junni Koki junni Lugolo junni Ndar junni Dakar junni Tëngéej junni Jabataba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba.

ñu nangu ma ne ubbi jumaa ji sëñ Mountakha bu kàbbaree bu kàbbar sa aajo fa ji àddina ak alaaxira ndax sëñ Touba ci boppam dina Rasuul sëñ Touba amoon Touba Serigne Touba Serigne Touba ana ko sopp ma ngi seen Sidi Muxtaar Serigne bi yëpp ak yéen tey ma bàcc la yaaram bi yàgg nga daal tey ma bàcc la yaaram bi yàgg nga daal magi maam Cerno magi ana ko sopp Ceerno borom Daaru ay saxobi le wasidi baa lay basira taala wa abdurrahman min mon al-fatiha wa sudara kunna de mon sarsara sabani dayma wa fa kharba khair khair ya ya nagar kaytaki balaa giri bisu tibee de wala balaa giri giri te takkusaan la daal ga fase du bëgg naa tanoo mara ngay konte keroog la Seex Bamba ñu ko gis ko maana ak bi ñu naa ko mu nooru maana ñu daal wa kaakara waa ko saa sa la la la ki gaar dama fa ñoo waxtu la fay taxaw tubaab yi nit mu dëkk dinaa ko naa jëriñ tubaab yi sokki mi dina jànge teeri fii garam basaar juróomi fan la woon dinaa ko na bisaar foofee la fekk kenn wax balees mu naa ko yaay balees am yaa ibliisa mu naa ko maay balees Abdou Ndiaye dinaa la dimbali ndax sa jaamu baa